non pas pour condamner nekk ci médias yi dafay communiquer incendiaire boobu ñii di coow yëpp dégguma ci kenn c'était en août 2019 jamono booba y avait des audios des enregistrements ojo xëy na yow sax am na yow ci déglu yu doon tasaaroo ci réseaux sociaux yeeg WhatsApp ak et cetera par des individus lâches bizarres euh, yuy spécialisé wu ci daggal ay saaga yu tar Cheikh Oumar Foutiyou Tall daggal ay saag yi ndey ñu ngi jéglu ci kaddu gi Cheikh Amadou Bamba Seydi Hadji Malick Sy Cheikh al Islam Baye boobu lañu jóge je prends à témoin la ministre l'intérieur Ali Guy Ndiaye ndax euh, ànd nañu ak euh, maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba ànd ci ak Serigne euh, Modou Mbacke Bara Dolli ñu collecté un échantillon d'audio jox ko ministre de l'intérieur mu imputé ko à la division spéciale de la cybercriminalité pour que ñu étudier ko ak seen jumtuwaay yooyu def géolocalisation pour teg leen loxo ba am na ci ñaar ñaari ñi jàppoon kooku c'était en août 2019 ñii di coow yëpp kenn déggu woon alors yemuñu ci on a organisé une grande marche sur sa bu mag a mag qui a largement couverte fi mu nekk ku dugg sama page Facebook boo demee nga gis toute la marche de la place de l'Obélisque ba RTS alors euh, yàlla dogal nag yëf yi jël beneen tournure à travers bi yoon du ay dagg yi saaga ndey mooy di diingat liggéeyu mag ñi à travers la personne de Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar Diagne bii lii amee yàlla dafa dogal ma daal di jëfee loolu ñu suñu diine jàngal suñu diina dafa ne ak diinu nasiqa nee na diine laayante biir la alors ma daal di déglu ni ko ñëpp déggee dans les réseaux sociaux yi mu wax di ay wax yu rëy xam nga boo demee ba naan grande mosquée de Dakar ak la grande mosquée bële si Amadou Bamba tëdd ca Touba il y a des et des signes maçonniques kooku du wax ju ndaw ah ñun ñu dal di jëfee li ñu suñu diine may rek mooy gëstu parce que l'islam moo wax ne sa moroomu jullit bu yëkkatee kàddu wala mu teg jeebu balaa nga cee yëkkatee atte wama shahid naa ilaa bi ma alib naa sang bu tedd bi moo ko santaane Euh, na ngay joxe àtte ak seede ci loo xam ne am nga ci yaqin bu wér euh, ñu daal di mandaté suñu benn responsable boo xam ne jamono bi fii imam ratib euh, Maodo Sylla nekkee imam ratib moom dañ ko copté woon ci comité de gestion bu grande mosquée ñu ne ko lii Cheikh Omar Diagne wax parce que en fait lii mu ngi ko jëkk ko wax en deux mille vingt deux mille vingt et un ñu ne wax ju rëy la ñu bëggoon nga. gëstuñu ko parce que comme que mbirum franc-maçonnerie la wax te nee na ñu ngi ci biir jàkk yi te ñun bi ñu fiy jàmmarloo ak franc yi en octobre 1985 kenn ci Sénégal ñemewul woon tudda baatu franc-maçon waxatula malaak di jàmmarloo ak ñoom ba procès di la ci fekk ndax on a eu un procès retentissant te dara waralu ko lu dul on avait sorti une liste de vingt cinq francs-maçons dont des avocats des parlementaires des journalistes des hommes politiques et des et des leaders religieux mu jur coow lu rey ñu porté ñu plainte coow la dem tribunal c'est une longue histoire junj naa ko fi junj ak yow ci benn émission bi nga nekkee Sénégal on avait le soutien de señ Abdoulaye Sy Dabakh le soutien de Baye Seydi Thiaw Laye le soutien de señ Abdou Lahad Mbacké des soutiens publics nag alors formation yi tiit le jour du procès non seulement on l'a gagné mais là c'est assorti d'une décision judiciaire de fermeture de leur siège satanique situé derrière l'Assemblée nationale il y a eu des dommages collatéraux il y a des, des, des, départs en exil, une tentative de suicide. Bon, on, a, on est en un livre sur ça. Alors, jamono boobu kenn ñewul won ngang baatu franc-maçon. Rawatina di jambar lok ñom tribunal rawatina génn une liste de vingt cinq maçons pour ñi may laaj liste. Alors, yàlla ma nekkoon na yàlla dogal na bi Cheikh Omar yëkkatee kaddu yu yi et normal et légitime ñun itam ñu gëstu alors euh, suñu kàngam boobu archive nationale la dem dama ko ne commencé gistu grande mosquée mu dem archive nationale daal di def une reconstitution ñu gis ne bi ñu toxolee la euh, la gouvernance ba nekk ndar war ko toxol en même temps que le transfert de la capitale à Dakar le 11 juin 1958 ci la Mamadou Diané toutes les grandes capitale des pays à forte majorité musulmane dañuy am lieu de culte bu taaru pour que bu amee gan wala des membre éminents de la umma islamique bu ñu ñëwee ñu am fu ñu leen di dalal pour ñu mën fa julli loolu moo indi idée wu transformer cet ancien cimetière musulman fii grande mosquée ne pour def fa jàkka alors ci la ñu def pose première paire bi le 19 juin euh, euh, 1960 euh, Senghor fekkee na ko moom Mamadou Dia ak tamit euh, le président de la fédération du Mali muy Modibo Keïta après nag ñu lancé une campagne nationale de souscription sëñ Fallou Mbacké euh, def acte bu rëy 10 millions la joxe woon ci période boobu en 1960 à l'époque c'était peut-être 100 millions mais comme que après collectivité lébu itam dajale ba joxe lu takku mais comme que souscription yi sa traînait Senghor moo bind lettre lettre baa nga archive nationale pour ñi ko bëgg a gëstu au roi Hassan II sàkku ci moom mu mottali Hassan ne non seulement danaa jël en charge le complément pour financer budget bi waaye danaa leen wutal architecte boo xam ne ñun Maroc yàgg nañu liggéey ak moom sur beaucoup de sites islamiques mu di Gustave Collet Gustave Collet alors architecte boobu moo dirigé les travaux de la grande mosquée te terme de référence yi buuru Makka jox mu ngi archive nationale visité nañ ko buuru Makka daf ko ne grande mosquée de Dakar bii ñu war a da tabax te ma jël en charge le complément du budget na nga fexe ba architecture bi répondre aux normes de l'architecture islamique à l'instar de tous les lieux de cult et de toutes les grandes mosquées yi nekk Maroc Gustave Collet ne ko amul problème parce que man am naa ci expérience te yàgg naa di tabaxal marocain yi ay jàkk donc kooku moo dirigé travaux yi ba grande mosquée pare ba mu paree nag ñu war ko inaugurer le 22 euh, mars 1964 buuru màkk ci boppam moo ñëw Hassan II benn ajjuma la woon sëñ Abdou Sif baax moo fa jiite premier salatul juma bi ci premier sàpp bi y avait le roi Hassan II buuru màkk y le représentant de sëñ Fallou à travers son neveu Serigne euh, euh, Cheikh Mbacké Gaynde Fatma et il y avait euh, euh, euh, euh, le khalife de la famille omarienne Thierno Seydou Nourou Tall fa la njëkki julli juma alors jàkk ja daal di démarrer nag ses activités ñu di jullee kon suñu waa ji recherche yi mu def loolu la ko jox dans dans dans le dans le terme de référence yu buur bi joxe dafa ne architecture bi ak décor intérieur bi na nga fexe ba mu dëppoo avec l'architecture islamique comme c'est le cas des mosquées Omar waaw kon Cheikh Omar Diagne ñoom ñu jóg ne jàkka jooju ci biir am na ay symbole maçonnique foog mu yëngal aras alors ndax bu fekkoon dafa wax il jeune je ne condamne le fait que et je l'apprécie beaucoup dans ce domaine-là day gëstu bu baax moom Cheikh Omar ci wàllu diine ji wàllu culture bi vraiment je l'encourage waaw bu fekkoon dafa ne. ndax daf leen woo ci débat intellectuel. waaw bu fekkoon dafa ne ngeen bëgg orienté wu ci débat. beneen bu nga xamante ni dafay ànd ak coupé dafay ànd ak euh, menace. non au contraire au euh, contraire parce que je l'ai je l'ai appelé je vais en parler tout à l'heure alors débat euh, ci bu fekkoon dafa génne ay texte wala dem ba foofu photo parce que ñun ba ñuy yónni Baye daam Laye dañ ko joxoon appareil mais que loo fa gis lu suspect rek photo ko indi ko gisul dara architecture normale ordinaire bu fekkoon dafa wax loolu. wax wax wax tamit euh, la même chose pour euh, jumaa Touba daal di ne ah lii ma fa gis photo baa ngi nii nangam nangam mais murit yi ñoo koy jëkk sargal ne ko jërëjëf waay ndekete ki ñu santoon pour mu tabax jumaa ji def ci dëxëñ lu ci bokkul ndeke dafa daq ginaar waxaale soxla dinañ ko jëflanteek moom kon Touba ak Tivaouane yëpp dañuy sargal Cheikh Oumar waaye dafa wax de manière gratuite sans preuve sans rien ay wax kese la loolu tax nag mu yëngal xol yi yamul ca loola les écrits des grands érudits de l'islam am na ci yoo xam ne dañ ko war a joyantiwaat am na ci yu ñu war a corriger kooku tamit di wax wax ju kenn neewul amuloo droit wax loolu waaye boo nee am na yu ñu ci war a corriger da ngay wax fan wala fan da ngay jël toute la bibliothèque de Cheikh Amadou Bamba qui ont des titres moo xam jazbu Euh, Masalik asmau badri ba bax baxa nga ne ah ouvrage sangam chapitre sangam paragraphe sangam sañ Touba dafa juum fii ak fii wala boog lii du noonu nañ ko jubbantee nii mais rien. waaye moom dañuy yor bax bax. yëpp lay jàng. xalaqtu kulli li karimin wa baxa tawbixa ikramin wa xultu bax. macha allah ba ci bindu Seydi Aji Malick Si. man ko tënkee ala xul ma yax boobu bikum rabbi lawla du aw. macha allah mu boobu noonu. ma bàyyi la yeggali alors ba ba ci dégg nga euh, xilaasu saa bu Si.